bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.com. alfayda alfayda kaddu gi di àddoo fi ci studio Alioune Momar Lo dal leen nag jàmm ceetu xabaar yi ci kàllaame kocc ci ga yàttal bu ngeen taaxirloo tuuti rek ma jukki leen li ci gën a fës li gën a fës ci xibaar yi nag bokk na ca ni ki tey ji nag la ñuy màggal guddi ngëneel gi di laylatul xadr ci dëkk bu sell bii di Medina Baye ba tax na rek fu nekk nag la taalibe yi jógee ko ngir itam nag daal di koy fuglu si waaye xam ngeen ne itam ne ku wax nag laylatul xadr ak Cheikh Mouhamadul Hadi Cheikh Ibrahima Niass taarix baak ndigal daañu ci dégg reportage bu Alioune Badara Diop parti bii di RP muy rassemblement pour le peuple tey jii nag la gën a nekk waaye tamit nag tey jii la gën a jox bopp coalition bi di Benno Bokk Yaakaar lu ni mel nag responsable régional bi ci lak boo ko daal di xamle ne itam nag Issa Ba ma nga xamee ne mooy coordonnateur départemental bu fu Foundiougne ba la mu wax ni ki démb nag du dëgg tey nag moom la engagé amal nañu ab janoo xibaar yi loolu loolee itam daañu ci dégg Cheikh Tidiane Diagne jaarale ko ci lii di chambre de commerce bu kaw Kaolack bi moom nag Serigne Mboup daal dinay xaatim rek ci ay bés yi ñu génn la ñu tuddee ab convention boo xamee ni itam ne mi ngi dox rek ci diggante Orange USAID ak CMK e partenariat boobee nak nar nay laal fànn yu bëree bëri te it nag dina jox lu tolloog juróomi téeméer ci ay xëy loolee itam daañu ci ànd ak noix bi yaay bu li lépp yembe mbokk yi daañu ca teg xabaaru bitim réew tàggat yaram kooru gay ak Baara Diop ko jeexalee ko li ci yéene kaay yi dal leen jàmm. Le journal Ngoné Ndiaye Reine moo nekk ci euh, waxukaay gi fego ceek Codou Seck madame Keneme ci wàllum xarale gi asalaamaaleykum dalee nag jàmm ci xibaar yi nañu ko waxee ca bopp ba nag la ñu koy yaatalee euh, parti bii di RP muy rassemblement pour le peuple jaarale ko nag ci kaddu yi Adja Nene Mbodj Niass ma ngay feddaliwaat nag kóllëreem ak kandoom euh, ci coalition bii di coalition Benno Bokk Yaakaar boole koog itam nag di ñaawlu ak weddi déclaration bi nga xamee ne Issa Ba coordonnateur départemental bu Foundiougne ba def na ko amal nañu ab jano jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi Cheikh Tidiane teewal parti rassemblement pour le peuple ci département bu Foundiougne daal di yëkkati woon fii ay kàddu ne nag parti bi nu mel lëngoom ak coalition Benno Bokk Yaakaar léegi tey mu daal di geex lu nu mel nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifay parti bi nu mel dagaloon nañu ci ab janook taskatu xibaar yi ànd ak responsable jeunes yi ak jigéen ñi naka noonu tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo di saaj yi daal di amal ay leeral ci kàddu yooyu nga xamante ne ñenn ki seeni jegeñaale dal nañu koy wax Adja Mbodj Niass di responsable régional bu parti RP mu ne nag kàddu yu ni mel dara amu ci ba léegi ñu ngi ànd ak président Macky Sall. dañoo dajee fii tey rassemblement pour le peuple RP pour rétablir la vérité ci li ngeen di dégg communiqué bi nga xam ne mi ngi jàll responsable politique bi nga xamante ni mooy premier secrétaire élu bu département de Foundiougne di Issa Ba di responsable départemental bu Foundiougne def na ko ci Alfayda te nom du bureau politique te bureau politique récemment def nañ réunion te liñ génnee bokkut ak li Issaba wax Issaba dafa wax ne RP génn na Benno Bokk Yaakaar te loolu du dëgg. te itam dinañu taxaw temm daal di jàppale njiitu coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection pencum ndaw réew mi ñu jëm ci mois de juillet. RP mi ngi réitéré engagement ak ancrage ci Benno Bokk Yaakaar pare nag pour ànd ak président de la république may ko majorité écrasante ci assemblée nationale politique parti bi nag ak responsable yi Foundiougne yi au niveau de toutes les communes ñi ngi pare pour daje pour waxtaan ñoom tamit def démenti bi nga xam ne nii def nañ ko xamal mbooleem réew mi ne leen Issa li mu wax moom kenn la concerné mais concerné wul parti. point de presse bi ñu ko doon amal ci salle de conférence bu Serigne Mamour Cheikh Ibrahima Niass jamono ji tembe tembe nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ndawu parti bi ak yenn ci responsable yi ñoom tamit nee nañu dinañu indi ay leeral salle bi nag dafa feesoon dell ak ay nit kenn ku nekk di wax sa naqaru xol ci kàddu yi nga xamante ne Issa Ba daal na koy yëkkati moom moomee sax ñuy wax ne dinañu xoolaat ay mbiram ci biir parti bi ñu bokk di rassemblement pour le peuple. Cheikh Tidiane jaañ dañuy teg foofee nag baaraam daañu càmbar ay mbiram ci commission ba ñu dénk wàllum discipline ci wax jeeg fa nga xamee ne fa la ko wékk ndaxte nag ña ngay xamle ne parti bii di RP fa mu nekkoon a jógu fa donte ne sax ne parti moom du ñàkk jafe lu ni mel nag Adja Nene Mbodja Niass moo ko xamle mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. disciplinaire dana intervenir ci wax ji ak lan moo ko waral ak lan moo nekk ci suufam parce que daf ñuy jaaxal ñu toog mu def benn déclaration ci turi parti bi te du porte parole parti bi du administrateur parti bi bon xamuñ ci ban doole la mën a waxee ne RP génn na benn bokk yaakaar te RP parti la boo xamante ni depuis 2012 mi ngi ànd ak président Macky Sall te àndut àndi naa feq àndut àndi joxe loxo rocc làmmiñ waaye dafa ànd ànd bu sincère ànd bu dëggu ndax loolu lañ xam ci suñ baay Serigne Mamoun Niass ku mu ànd ànd naag yow waaye ku mu mës a xeexal xeex naag yow loolu la xamoon ànd gor la ci xam fépp ci région yi Sénégal yi muy dakaar muy Kaffrine muy Tamba muy Ziguinchor partout le RP bien ancré dans le Benno Bokk Yaakaar quant nag li nga xamante ni ay problème interne la au sein de notre coalition loolu ñun danañ ko régler internement parce que waa APR yi sax bu bu seen ngeen dégg leen ñu ne am na lu leen naqadi ci biir coalition bi waaye suñ engagement ñi ngi koy renouveler tous les responsables départementaux et communaux def nañ seen parenage jébbal ko Benno Bokk Yaakaar te dañuy continuer léegi liggéey bi pare pour dem élection législative avec le Benno Bokk Yaakaar. dañuy des ba tey ci wàllu politique waaye bi la yoon nag dañuy utali ji rek diwaanu Vélingara foofee itam nag ab janoog taskatu xibaar yi la ñu doon amal ñoom militan yaa nga xamee ni ñoo bokkee ca parti bii di APR bu commune bu Sarécoly ngi tuddee rek ay militant première heure ñoom nag la ñu bëgg jamono ji rek mooy njiitu réew mi euh, dalal leen ci ab audience boo xamee ni itam dañ caa bëgg rek mu delloo naar bi xoro moom Malang Zali Diatta moo ni xamleeg Babacar Diouf. commencé d'abord par euh, président de la république euh, Macky Sall. que tey moom moo nekk njiitu réew mi donc ñi ngi koy sant ñi ngi koy gërëm. ak ñi ma toogal fii yëpp maa ngi leen di sant ñoom ñooy samay pap samay nijaay. samay goro ñoo xam ne ñoom ñoo njëkkoon nekk militant Macky Sall. donc depuis 2008 dekkal ñu ngi milité si parti Macky Sall ba ñu changé décalage def ko APR. léegi ñëw nekk coalition benn bokk yaakaar ba léegi samay papa yooyu samay nijaay yooyu samay toro yooyu ñoom ñëpp ba léegi ñu ngi milité si parti boobu ak man mii parce que man mii yore naa carte Dekkal Ngor ba léegi maa ngi koy denc donc lu ñu dajaloo fii mooy dañoo seddaat ñu suñu commune dafa nekk ci ginnaaw demul kanam mu ngi dellu ginnaaw depuis 2009 commune bii la Macky Sall njëkk a gagné comme communauté rurale bu mu ko gagné depuis booba élection bu jaar la depuis 2009 ba tey élection bu jaar dañ koy jox victoire présidentielle 2012 ñëw ñu jox ko victoire élection législative ñëw ñu jox ko victoire élection au conseil des collectivités territoriales ñu jox ko victoire parce que conseil yëpp ñi fi nekk dañoo voté candidat benn bokk référendum ñëw ñu voté mu jàll ñu jox ko victoire présidentielle 2019 ñu ñëpp ñu mobilisé ñu joxaat ko victoire encore ñu ñëw ba élection locale yi ñu ñëwaat ñu jox ko victoire léegi ñu ngi jublu ci élection législative 2022 donc dañoo ne léegi il faut que ñu dajaloo ñu waxtaan waxtaan bi mooy na dañoo bugg a Macky président de la république ñun commune Sarakuli Sall mu jox ñu audience ñu audience ñu dem gise ak moom waxtaane ak moom ñu waxtaan ak moom mbir mi Sarakuli ñi waxtaan ak moom mbir mi réew mi mbir mi Sénégal ñu waxtaan ak moom mbir mi parti bi donc audience boobu lañ bëgg mbir mi Saarakouli Sall dañoo seet ni Saarakouli Sall avancé parce que fii dañoo am ay jafe-jafe yu bëri tey tey tey suñu château benn château rek lañ am ak ay mini forage mais mini forage yooyu ak château yëpp benn doxul poste de santé bu fi nekk ni poste de santé Saarakouli Sall ndox foofu benn teen moo fa nekk mais est ce que ndox boobu baax na est ce que malade mun na jëfandikoo ndox mais ba léegi mënuñu fexe ba château bi ñu réparer ko parce que buñ ko réparer ndox bi mun na dem bu ay villages yi nekk mun na dem distance bu deux kilomètres trois. dañuy euh, bàyyi nag wàllum politique daal di àddu rek euh, jëmee ci euh, jafe-jafe askan wi mbiram astu soxna ca l'hôpital bu Louga nag jàppale ne ba jamono ji rek coow li fayagul Adja mbay mi nga xamee ne moo jiite jigéen ñi faree ci kaw gi moom nag daal di na yëy rek yàbbi jëmee ci wax ji waaye tamit nag daal di ci joxe xalaatam ne jot na tey ji nag nguur ak Sénégal gi daal di lal ay pexe ngir itam nag jigéen ñi mën di mucc ci jàmm ak salaam waxtaan wekk Cheikh Ababacar Dieng. fan yi la yëpp bu dee ne ci Louga la tàkkee it làmmiñu safara si moom yegg na Kaolack mbootaay yi ëmb jigéen ñi ne waxtu yi ñu toll nii moom mbir mi dafa doy waar te métti na Adja Ndioug Mbaye mooy seen présidente. xam nga boo seetloo ñun dañu jóg toujours ne àll bi métti na taax yi métti na lan moo tax àll bi amuñ ay poste de santé ñu di doon jooy ne nañ ñu indil ay case de santé ut ay sage-femme itinérante yu fay dem mais buñ demee ba loolu ñu doon jooy mu wëlbatiku tey wu teel doon métit bu a a métti na. métti na. métti bi mooy. jigéen mooy ëmb jigéen ay imbi mooy jur jigéen a nekk ci kër di sëy coono yëpp jigéen la waaw suñ demee ba loolu ñi nga xam ne tey ñoo leen war a dimbale pour ñu accoucher ci am doom ci jàmm ña grève ne dootuñu def hôpital su boobaa day gën a métti ñoom ñii nga xam ne nag fekkee nañu démb nekk fi tey jàpp ne bu njëkk de ci maternité yi ay matron yu jàngul benn yoon faj ñoo fa nekkoon te jigéen ñi daan nañu mucc ci oom yu sedd waaye bi yëfi doxee ba ñu indi sage yoo xam ne ay professionnel lañ ci mbir mi daf leen gënoon a neex waaye bis ba ñu déggee ne dañoo décrété journée boo xam ne maternité bu amul sage-femme la Adja Ndioum Mbaye ne adunam dafa tukki loolu kenn waru koo xalaat ak fi réew mi toll. su fekkee ne dem nañ ba ñoom it ñooy ay décrété ay journée sans sage-femme journée sans maternité. nekk te booba ay matrona ne fi ñuy ay mag ay Kuba ñu nekkoon fii Ndofane ak feneen ak feneen ay matrona ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jàngee seen formation yàlla leen dañ samp ci liñ samp te jigéen jigéen ñaa ngi am na ñoo xam ne ñu ngi ci seen période accouchement te mënuñoo bañ a dem ñu accoucher leen gynécologue góor yi ñu ngi fi xëy na ñooy ñoom it buñu ànd ak ñoom day doy waa nañ dellu si les anciennes matrones former leen bàyyi leen ci hôpital yi ñuy dimbali jigéen ñi parce que mënoo toog di accoucher te amul ko la assister moo tax it jàpp ne fi luy jot jot na nguur gi taxaw sages-femmes yi jël seen responsabilité organisation féminine yi taxaw ñu a suñuy nawle nekk ci problème te ñun la suñuy nawle it di dee kon il faut que ñu nit ñu jóg booloo bu dee li ñuy wax toujours di ko oote mi ci ñun booloo doon benn xeex lii ba ëllëg dootut am parce que nag metti na lépp nag waxtaan dina am waaye gi def li mu war a def wane ne mooy kilifa sage-femme yi ak état nañ waxtaan juboo mun nañoo waxtaan juboo nañ ñu dimbale jigéen ñi ñu am doom ci jàmm parce que kenn warul di jur doom di dee ndax ku nekk soo sañoon ëmb ba ëmb sa doom ëllëg mu dimbale suba bu ñu xëy rek ñu dégg ne benn jigéen dee na doo doon am doom loolu moom dafa war a jeex Sénégal nag xët-xët yi yëpp mu ngi am ginnaaw boo xamee ne asu soxna lañ ne daa bëggoon a mucc ca Louga ñu sàggane ko ba mu faatu waaye it sage-femme yi ñi ngi bokk ci alliance bi ñuy wax ànd gësëm amoon nañ fukki poñ yoo xam ne ay revendication la yu ñu doon laaj seen digg ak nguur gi. jaajëf Cheikh Babacar Dieng waaye nag duñu la bàyyeegum ndaxte itam nak ñoom jigéen ñooñee ña ngay laaj ci seen cër ña ngay laaj itam nak ñu tab leen rek ci list yi ngir itam nag ñu mën a bokk ca pencum ndaw réew mi lu may loolu itam ci métital ak jafe yi nga xamee jigéen ñi ña nga koy ay jànkonteel nee nañu nag daañu amal ab doxub ñaxtu euh, fukki fan ak ci weer bi nga xamee ne moom la ñu euh, dëgmal Adja Ndiouk Mbaye la ñuy tàttaan ay kàddoom le 14 mai danañ marche te marche boobu ñuy marche bu soobee yàlla xeex métital yi jigéen ñi nekkee la xeex monde rural bi nga xam ne sonn nañ du jiwu du matériel agricole du dara lu ñuy am te li ñuy am dafay néew soo demee ci marché bi te ñu jaayee la ko ñaari téeméer kilo état di la ko subventionné te lañ lay jox doyul kon il faut ñu xeex bi kon nañu jox suñu cër ñu ngi jëm à l'Assemblée nationale nañ ci jël nag ci cër yi ci jigéen ñi waxuñu góor jigéen lañ wax buy défendre cause jigéen yi Assemblée nationale soxla parité lañ wax mais ñun jigéen yore organisation mondiale nañu jël ñu asa ñu xam nag lan la jigéen ñi àll bi nekkee ndax ba léegi ma lay wax xamuñ lu nekk ci àll parce que bu ñu wax état dëgg am na ñoo xam ne dañu ñëw di neexal nit duñ ko wax dëgg nañ wax nit ñi li xew ci àll bi ñu xam ne lii moo xew ci àll bi président jóg ci faj ko saafara ko mais te ko xamul doo saafara te xamul mbéy mi am na problème suuf si am na problème parce que foncier bi ku nekk xam ne ne dañu koy luy hectare bi jur fukki junne ak gën naa yokk ndax keroog maa ngi dem ci côté fële kër Dengare ñu may wax ay ñaar fukki junne waaw fan lañ jëm il faut que l'état règle ce problème là soo tax may yuuxu toujours ne nañ pencoo suuf si ak mbay bi muy les assises de l' agriculture et du foncier pour que ëllëg problème suuf si jeex problème agriculture bi jeex ci Sénégal kon yaa ngi interpellé parti politique yi ñëpp laay interpellé lu nu parti muy la bennoo fi nekk nañ investir ñi nekk monde rural bi ci la ñu bokk taax yi rek nekkuñ les organisations yi nekk ci paysanne jigéen laax de waxuma góor man dama xam li ci àll bi yërëm ñi ci àll bi di ànd ñoom di liggéey juddoo ci àll bi moo tax ma xam la ci àll bi mais nag nañ investir ñi ci àll bi suñ ku nekk sañ ngaa banque sol ne kenn dootuñu not c'est fini te la 14 bu ñu na te kenn dootuñu not Sénégal yëpp ñooy daanu si kaw lox le 14 mai bu soobee yàlla bind kon xam nga kenn du nekk ñu dans les délais bañ koy bind début mois bi mu am weer na ko ñëpp yëg wax sax góor a jigéen parce que ñun suñ fédération bi c'est mixte ndax gis njëriñ moo tax góor ñi jëkkër yi ak doom yi ñoo bokk si ndax dañuy wuti jiwu ci état dinañ indi xam ñun amuñ état benn partenaire bu dul état kaddu yi mi nga xamee ni moo jiite jigéen ñi ci a kaw gi ndéem sànq nak ña nga doon waxtaani wàllum paj meek paju mi dañu ciy dikkaat wàllum ak bu bon bi ñu faral di nemmeeku ci l'hôpital yi doon na tey ji nag lu askan wi di naqarlu li ci nekk ni ay sooxe sooxe ak lañ ca war a joyanti te nga xamee ne itam ne ñoom personnel de santé bi am nañ ci cër yaatu moom nag Ibrahima Vier Diagne àdduna ci joxe ci xalaatam mi ngi ci micro noir bi ay dafa am sens ci ñun. accueil du guidage. c'est-à-dire ki lay yi nekkul rek koo xam ne mën na la wax fii mooy maternité fii mooy chirurgie fii mooy cardio diw bee mooy faj non kii accueillir dafa war bés seen premier ndaje yéen ñaar nga sentir ni nit kii wax dëgg yàlla su ma ñëwaatee hôpital moom lay laajte parce que sama jaaxle yëpp amoon na problème sama jaaxle yëpp doon na loo xam ne mënuma ko woon a satisfaire alors boobu nag nañu waxante service yi dee am na service d'accueil mais man de li ma gëm te xam ko loolu guidance la gën a tudd ne accueil parce que accueil nag professionnel la koy def professionnel mooy kan ñu waxee la dañuy am problème hôpital mais problème ba dañuy commencé ca porte ba ba ko ñuy faj pourtant romb nañ ki leen wax ne fii mooy diw fii mooy diw ñun daal nañu defaraat toogaay bi mën a wax ci suñu xel mën a def ci suñu xel ñii di ñëw ci hôpital wax dëgg yàlla kenn bëggu la ñëw hôpital leneen ak leneen ak leneen aussi c'est la même chose fexe nit ñi ñuy liggéeyal ñu fexe woon leen ne ñun ñu ngi ànd ak ñoom. ci ay bés yi ñu ah, génn nag la ñu doon màggal rek bëccëg ba ñu ah, jagleel wàllum xeex sibiru lu ni mel itam nag waa kër docteur yi fii ci Sénégal ñoom màggal nañu ko bu dee nag ca diwaanu Ndakaaru foofee nag amal nañu fa ab ndaje mu am solo doon ca waxtaane itam ah, jéego yi nga xamee ne programme national bi tegagum nañu ko Doudou Sène mooy coordonnateur bi mi ngi dikkaat ci tolluwaay bi ci micro Arona Niang mais dama bëggoon fàttali rek ni ci àdduna bi tey jii sibiru bi dafa nekk toujours problème bu rëy a rëy ba ñu xayma 2020 bi rapport bi nga xam ne moom la OMS def gis nañ ne noom de cas yi toll na ci pratiquement 240 millions de cas de paludisme yi ñu am ci àdduna bi avec plus de 600 personnes yoo xam ne faatu nañ ci et 80 cent c'est-à-dire téeméer boo jël ci situation boobu yëpp ci biir Afrique lañ koy retrouver pour wane ne donc sibiru bi nekk na ba léegi jafe-jafe bu rëy a rëy tey nañ ne nombre yi am toll na ci 399000 cas environ xam naa waxu ci olof dina xaw a jafe tuuti mais comparé à 2021 gis nañ ne dafa xaw yokk tuuti ñi ci faatu aussi dem na ba toll ci 399 cas mu à peu près 400 cas 400 faatu comparé à l'année dernière ñi nga xam ne ñu ngi woon ci 373 personnes ci faatu loolu wane na ne sibiru bi quand ñu ngi ci digg ki bi daal parce que malgré que ba ñu xaymaa suñu plan stratégique bi bu jógee 2016 2020 wane na ne quand même sibiru bu wàññeeku na bu baax ci diggante boobu parce que boo jëlee téeméer wàññi nañ ko ba pratiquement li toll ak fukk ñi ciy faatu jot nañ ko fexe ba wàññi ko boo doon jël téeméer yi ci doon faatu wàññi nañ ci à peu près yoo xam ne faatootuñ ci boo pour wane ne rek Sénégal rendez bi nga xam ne am na ko fii ak 2030 am nañ yaakaar ne dina ko atteindre pour atteindre l'élimination loolu nag lu ñu gisee ni ñu ko xaymaa tey jii dafa am li ñu wax répartition inégale tey boo demee Kédougou Tamba Kolda ñi am ci sibiru pratiquement mun naa ne téeméer boo jël juróom benn fukki yëpp foofu lañ koy retrouver ñi ciy faatu tamit foofu lañ koy faral di retrouver aggravé tamit foofu. ci wàllu euh, tolluwaay boobee nag ba tey rek ca la ñuy euh, des ndaxte nag donte ne ay jéego am na jóge ko ci nguur gi euh, partenaires yi ak waa kër docteur wante terewul ne nag njaw des na wax xambin ndaxte nag ba jamono jii li koy joxe bàyyee guñu ko jaadu itam naka ñu bàyyi ci xel duudu seen ba tey mi ngi ci micro Arona Niang loolu nag li ko waral mooy foofu dafa bari ay facteurs notamment taw bi déjà mi ngay commencer di taw bari na ay réseau hydrographique migration bi entre les pays voisins muy Guinée muy Mali ak l'orpaillage traditionnel mais également de boo demee Kolda béy gi ñuy béy ci biir kër yi ak taataan ndox yi nekk ci koñ-koñ yi facteurs yooyu mooy tax euh, sibiru bu gën a bari foofu mais boo demee bët gànnaaru Sénégal tey sibiru bu wàññeeku na bu baax a baax tey Louga saint Matam ak une de Ziguinchor pratiquement mun naa ne sibiru bi boo jëlee junni nit ay ñett ba juróomi nit ñoo koy am ci dëkk bi nag muy Kolda muy Kaolack Diourbel ak Fatick ak Kaffrine foofu ci digg doom la nekk tuuti donc ñetti faciès yooyu lañ am fii ci réew mi loolu yëpp li ñu ko may mooy bu weesoo engagement politique bi état am li ko gën a indi mooy appui bi nga xam ne partenaires yi ñu ngi koy am ak xarañte gi nga xam ne personnel de santé bi am na tey mënuma terminer tudd ma gërëm sant ñi nga xam ne ñooy partenaires yi notamment le Fonds mondial di remercier USAID PMI di remercier OMS di remercier ñi nga xam ne ñooy UNICEF mais également tous les partenaires techniques ñi ñuy àndal muy MACEPA muy plan international muy Speak Up Africa ñoom ñëpp kenn ku nekk am na loo xam ne yaa ngi koy indi mais di remercier également ñi nga xam ne ñooy communauté yi communauté yi munoo xeex ab jàngoro te communauté yi bokkuñ ci tey le niveau communautaire ñoo xam ne seen engagement kenn mënu ko naatable muy ñoom Béytir muy ñoom bàjjanu gox yi muy ñoom élage ñoom ñëpp dañuy jàpp ci li nga xam ne mooy xeex sibiru bi ci niveau communautaire mais également di remercier agent de santé parce que tey ji li ñu mën yëpp agent de santé yi nga nekk ministère nga nekk euh, région médicale nga nekk district wala nga nekk poste de santé c'est vrai que dañoo nekk ci jamonoy tension mais ñu ñu war a gërëm lañ ñu ñu war a sant ci effort yi nga xam ne ñu ngi koy def saa ne pour que Sénégal nekk au rendez-vous état bi aussi mi ngi def ay jéego parce que nee naa budget bi mi ngi jàll ci 172 milliards dem ba ci plus de 200 milliards pour améliorer santé population yi di fàttali ne rek Sénégal moom objectif am mooy ñu fexe ba tàggoo ak sibiru fii ak 2030. mooy coordonnateur programme bi xeex au niveau national li nga xamee ne moo di wàllum sibiru ñu des ba tey ci fànn woowee ci ay bés yi ñu génn nag na mu baaxoo di ko defee rek moom a njiital MJKDFS ma nga woon nak ca l'hôpital régional bu Kaolack bi lu ni mel itam nag jaarale ko ci a bëccëgu ndimbalante ak jàppalante waaye tamit nak doon joxe ay ñam moom Ousmane Noël Dieng jaare na ci itam rek daal di àdduwaale jëmee ci wàllu politique bi ay kàddoom ak Cheikh Tidiane Diagne. tey jii nag ñu ñëw dëgg yàlla comme ni nga ko commencé suuba léegi xool ñi nga xam ne parce que kenn mënta gën a baax yàlla yàlla suñu borom ko neexoon kenn du feebar yàlla bu ko neexoon kenn du dimbal kenn ku sañoon doo ñaan ku sañoon doo ndimbal waaye yàlla moo defee noonu addunam mooy defee ñi am lu bari ba duñ tawat dara mooy def ñi am jour le jour ñii duñ am dara dara dara dara am na dañ ko dimbale loolu nag yàllaa ko def moo tax may faral di wax jaamu yàlla yi nañ doog a dugg nit dafay muñ doom sax bu juddoo dinay ñeñeew raam jóg taxaw dox nañ ko jàppale man sëriñ bu defulu ma dara soxlu dara ma sama loxo ci kaw musuma dugg benn bureau politicien ku ko xam ne ma weddi film ma teg ko ci internet bi musuma yaakaar kenn man jën formation rek laa xam mais sëriñ bu mi ngi doog a ñëw nañ ko jàppale nañ ko ñaanal mu réussir ñu ko may nag sëriñ bu xam ne nu def ba defar Kaolack c'est un parce Kaolack bu maam xalifatu Mohamed Niass Kaolack bu jàngo bi kon Kaolack santul mbuub tudd sëriñ na ci liggéey na simmeeku na yërëm askan wi na dimbale marché bi na lépp leer nañ jaayuñ suuf bu am favoritisme na jeunesse bi gis seen bopp parce que Kaolack Ousmane Noël yor ko Serigne Boub yor ko Moundiaye Rahma yor na Kaolack di développé rek ñun on cherche le développement de Kaolack le développement de Kaolack la soxla et donc pour ma yor ko keneen yor ko c'est défense de Paris un an bëgg naa sëriñ Kaolack set tali dafaru bëgg naa jeunesse bi jàpp dara bëgg naa marché Kaolack changé commerçant yi am ndam bëgg naa jeunesse bi Jakarta yi baax na waaye ñu jàpp ci leen dul Jakarta sëriñ boobu cœur de ville pour Kaolack la du pour ànd nawle yéen a ngi déglu xibaar yi FM ña nga ca taaxum kaw ma ñu duppee Cheikh Imam Assane Cissé wéy ba tey ci jukkim xabaar yi li itam nag digoon naa leen ko lu tolloo ko juróomi téeméer ci ay ndaw fii ci diwaan bi ci lu yàggul dara nag daañu mën a amuk xëy lu ni mel nag mi ngi juddoo ci ab convention boo xamee ne euh, chambre de commerce bu Kaolack bi moo ko daal di xaati mag Orange Finance Mobile Sénégal CMK ak USAID njëriñ la ak jubluwaay bi dañ ciy leerlu ak noa bi ay président chambre de commerce bu Kaolack mu nekk maire bu Kaolack Serigne année bii la doon amal signature de convention diggante chambre de commerce agriculture industrie bu Kaolack CMK Sonatel Orange ak USAID Serigne Boub. ñu ñëwoon fii di signé ay protocole yoo xam ne benn bi ak USAID la benn bi projet àndandoo benn bi ak suñ partenaire Sonatel ñett projet yëpp nag dañoo ànd benn bi day jàppale opérateur agricole yi benn bi jàppale leen ñu mën a jaay mais xam ngeen ko ku wax jaay ak jënd mu am transaction commerciale loolu tamit Orange dugal ci loxoom ba nga xam ne nii nit ñi danañ mën a fayante xaalis ndax xam ngeen xaalis moom denc bu Kaolack suñu sukkandikoo ci Serigne Mboup. mooy orange tamit engagement ak ñun pour recruter xam nga ñun suñu problème toujours mooy emploi te loolu dafa am solo ci maire buy doog di départ nga recruter kilomètre 500 jeunes. Cheikh Tidiane Sarr mu nekk directeur général Orange Finance Sénégal ñëw na ci solo programme bi. Orange Money comme ni ngeen ko xamee dafa nekk produit boo xamante yàgg na ci marché bi lépp 10 ans sax léegi mat na 12 ans bu ñu ko lancé ak léegi doon liggéey ci nañuy fexe ba ñëpp mën a am lu ñuy jëlee porte monnaie électronique maanaam ba am day nekk téléphone loolu nag yàgg nañ ci liggéey ba nit ñi commencé ko jëfandikoo ba mu yaatu ñu commencé nag liggéey léegi ak entreprise yi di liggéey ak collectivité bi bi ñu xoolee loolu ñu ñëwoon fi gis liggéey bu am solo bi am Kaolack bi président doon def chambre de commerce bi ak ay mébét yu mu am ci mairie Kaolack ñu gis ni loolu ñun mën nañ ci def suñu loxo bu baax ci a dugal seen loxo ci projet bi moom gis na projet bi ci la. jaajëf Noa Biaye nag moom maire commune boobee nag dikkaat na rek ci jàppale geek fa ñu koy séntu jëmee ci partenaires yi ci loo xamee ne itam ne dina soxal projet ba commune bi sëriñ bu ba tey ma ngay rafetlu xaatimi ko déggoo boobee ay kàddoom ak Noa Biaye. yoo xam ne ci biir Kaolack la ñuy liggéeyee. en même temps tamit loolu tamit maire ci boppam dafa amaat yeneen programme yoo xam ne maire bi mi ngi programme tamit à son tour recruter encore 500 personnes yoo xam ne nii ci sécurité. alerte la ci environnement et en même temps ci nettoiement daal encore tamit moom mu nar ñoo jàppale pour ñu def les cœurs de quartier comme ni nga gis cœur de ville mais ñu fexe ba nga xam ne quartier bu ne day am miniature je pense que très bientôt danañ ko proposer Kaolack waay mu nekk loo xam ne nii dana xaw a tax mu désengorger marché bi marché bi nga xam ne ku xëy fi ngay ñëw nga xam ne dana am ay relais ci quartier yi incha allah te loolu a indee seen ak gunge ak wàllum jàppale rawatina itam ci loo xamee ne nag ne dina gën a ñoŋal wàllu koomu askan wi Cheikh Tidiane Sarr mooy directeur général ba ñu lu ko ba tey ci micro noa bi lépp lu jëm ci wàllu jokkalante xaalis rek jënd ak jaay loolu dafa fekk loo xam ni mooy yàqu Orange loolu moo ko tax a jóg ñu ne nañu jàppale producteurs agricoles yi nañ jàppale entrepreneur u Kaolack yi nañu jàppale aussi population yi nga xamante ni dañu nekk ci marché yi jakartamaan yi président wax na ko léegi jàppale toute la chaîne ci fay ak fayeeku parce que fay baax na am na fu mu denc fu ñu ko dul sàcce jàppale leen itam ci lépp lu jëm ci li mutuelle bi di def lebale xaalis ak récupérer xaalis boo xam te ne dañ lebaloon donc fay bor jàppale maire bi ci collecter taxe municipale yi loolu aussi am na solo trop et puis continuer à contribuer ci lii créer ay liggéey ñu am yéene léegi léegi nii tout de suite ne ko jox ñu ay ndaw yoo xam ñu jël seen i CV saytu ko 500 CV analyser xool ñi nga xamante ni mën nañu liggéey def liggéey bi ñu bëgg ñu jël ay nit daal moo nekkoon suñu mbébét moo tax ñu ñëw tey toog président pour signer loolu jàppale ko ci liggéey bi mu tàmbalee liggéey boobu léegi moom homme d'action la ku ko xam-xam ni homme d'action la te ñun jublu ci liggéey bi pour mën ko réaliser ñëpp teg ci seen bët ku ci war a mën jëriñoo ci biir Kaolack mën ci jëriñ jaajëfal ko moom noo bi ay ma tatan yooyu le kaddu dañuy dem nag ca diwaanu Touba Mbacké daal di addu itam nag jëmee ci gi eh, ca Mbàkke moom eh, jàppale ne itam ne kilifa ya ñu dénk fànn wi ñoom nag tàmbali nañu rek liggéey baak la ñu tuddee wàllum ak eh, cartographie ba ndaxte nee nañu itam nag dañoo war a baral a jéego yi ndaxte ko fukk ci ay weer war nañoo tàbbi ci la ñu tuddee recensement dëgg-dëgg ba leeral gi ak Mamadou Moustapha Mbaye xayma nit ñi nga xam ne ñooy yeewu fii ci Sénégal nguuru Sénégal taxaw na temm ci amal ko taxit ay ndaje yu am solo doon am ci département yu bëri bëri bokk ci bopp Mbàkke mi nga xam ne gouverneur bi ci boppam moo ko jiite woon waaw tey li ñu fi indi woon nag dafa bokk ci li ñu naan recensement général de la population et de l'habitat loolu mooy lan mooy tey ji ñu dëkk ci Sénégal gépp war nañ leen a xayma xam ñaata nit ñooy yeewoo ci réew mi ak particulièrement it ñan ñooy yeewoo fii nii ci Mbàkke loolu daal moo ñu fi indi woon tey léegi nag activité bi dañoo bëgg ñu vulgariser recensement bi c'est-à-dire def de telle sorte que ñi fi dëkk ñëpp yëg ne recensement am na su ko defee agent yi bu ñëwee seet si leen duñ leen bett ñu mën leen a accueillir voilà laaj leen ay ay question ñu tontu ci cënam gën a rafete moo cartographie bi nag moo commencé jamono ji cartographie bi ba mu commencé léegi presque def na deux semaines environ waa cartographie mooy tey ji agent yi dañuy dugg ci biir kër yi xool tund mbàkke bi yëpp ñaata kër fi ne loolu la ñuy xool kër yiñ ci dëkk kër yiñ ci dëkkut ak xool ñaata njëla ne ci biir kër yi ak laajte as tuut rek ñaata nit a fi ne balaa fi ak fukki weer ñuy delsiwaat di xayma kenn kenn nañu fi yeewoo loolu lañ naan dénombrement mais pour le moment ci cartographie lañ toll xam ne moo jiite service statistique ak démographie fii ci diwaanu Diourbel di wax ne moom daal li muy ragal weesuwul ñi nga xam ne ñoo dëkk fii ci Touba te yenn saa bu ñuy wax wàllum recensement duñu ci sawar dara Mamadou Moustapha Mbaye Touba Alfayda FM. xibaar yi ci Alfayda. yegg si euh, nañu nag ci ponk bi nga xamee ne moom la ñu euh, jagleel rek xibaar yu soxal wàllu euh, koor gi junjoon naa leen ko guddi guddik tey jii nag la ñuy màggal rek laylatul xadr ci dëkk bu sell bii di Medina Baye waaye xam ngeen ne itam ni ku wax rek laylatul xadr ci Medina Baye alafoog itam sab xel daal di daj waa kër Cheikh Mouhamadul Adi Cheikh Ibrahima Niass ngëneelu guddi gi ak taarix beek ndigal li dañu koy yaatal ak Alioune Badara Diop. laylatul xadri di guddi goo xam ni dañ koy màggal ci àdduna wërngal këpp fii nag ci diwaan bu Medina Baye fu ne la doomu aadama di jugee ngir teewee bile bés. waa Amérique ñëw neen sax déjà am na ñeneen ñu war a ñëw waa Allemagne ñëw neen waa Sweden ñëw neen waa France demet ñu war a ñëw bëri nañu waa Angleterre yi. Cheikh Baye Adi Cheikh Ibrahima waa waajuram bu góor ba daan ko taxawal tey jilee mu wutu ko ba tax na del dellusiwaat na ci bile taarix. taarix leelatul qadri bi histoire am mu ngi dalee 1978 la ko sin waajur Cheikh Mamadou Hadi tàmbalee def ku ñu ko wax mooy Alhaji Abdou Fall di muqad muqaddam Cheikh Mahmoud Hadi dëkk sa sëñ ci Amad Fall mu ne mu ngi fàttaliku ci la Cheikh Mahmoud Hadi daan invité ay soppeem xaritam ñoom yi neen ñuy màggal guddig leelatul xadr bi ñu dem ay at mu ne nañ ci boole sëriñ yi ñu demaat ay at mu ne nañ ci boole jàngalekat yi école bi mooy égyptien yi xam ne dañoo ñëw ci réew mi xaw tumuranke mu ne ah mu jëm leen a benneel wan li ngeen di def lu ñu neex leen ginnaaw bi mu amee ndigal ci xalif bu Medina nañ ko amal tey jiilee fii ci diwaan bu Medina Baye ci teewaayu kilifa yu bëri. gannaaw buñ jotee ndigal sin waajur Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass al Khalifa sahibul fayda moo ñu ko dox 2005 gannaaw bu sin waajur làqoo mun nañu ah li nga xam ne moom la sa papa doon def ci sunna su rafet eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man sunna sunnatan xasanatan fa law ajruha wa ajru man amala biha ila yawm alqiyama képp ku sunna sunna su rafet du dañ da lay képp ku topp sa gannaaw du koy sunnaal loolu nag ci la ñuy joxe ndigal na boo demee ba mënoo ko sax boobu ay tout tànk la ñu ngi nekk ay étudiant mënaguñ dara nekk Égypte di jàng ñëwoon vacances rek mënuñu boo demee ba mënu leen ko bu nga ñëwee si ñun ñu jàppale la ñuy say papa dëgg yàlla boobu ba léegi nag ñaanam ak ay tëbbinam ak ay mayam mooy feeñ jotaay bi waaye nag fekk na suñu waajur bés bii daf ko fonkoon lool ba mu nekkee Amérique sax 2004 feebar yónnee na na nañ ko def. xiiwal ak ngëneel gi nekk ci bis bi lee ba tax na fii ci diwaan Medina Baye moom dañ koy jox àq ak yelleef bu mucc ayib. ak euh, xiiwal gi ñu ciy taataan ndax xayrun min alfi shahr loolu la yàlla wax moo gën junney weer te junney weer ñu ne boo koy calculé mu ngi tolloo 83 ans yoo xam ne ne yàlla dafay nangu say jaamu ak say jaamu yàlla ak say ñaan yëpp 83 ans yu teg sax ñu la vingt trois ans ak ay weer kon loolu képp ku yàlla may nga mën ko fekkee surtout ma nag ñi ci boole ay jàng kaamil yoo xam ne ne da nga koy tàmbali ci commencement koor gi mboolem seen daara yi ku na waaw ñu bëri tàmbali neen seen daara yëpp dinañ dajaloo buntu kër Cheikh Mamadou Hadi ak ci biir ñu toog ak seen i daara jàng li ñu mën a jàngal ñu complété ko ak li ñu ñu boole ko bu guddee incha allah ñu jox ko al imam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé mu xatmul ñu ko. guddi Laylatul Qadri nag fii ci diwaan bu Medina Baye bile dañ ko dara jaale yi kii di Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass Zeyda Fatima Zahra ak sayda Mariem bis bi nag doon na bis bu am taarix lool fii ci diwaan bu Medina bàyyi mbooloo mu tàkku mi ngay gis ñëpp di ñëw di sàkku si ngëneel ak tawféex ca guddib laylatul xadri bi. jaajëf Alioune Badara Diop dañuy des ba tey nag ca googu leen mbir moom ma nga xamee ni moo di Cheikh Baye Adi ma nga xamee ni mooy taxawee jotaay boobee bu weesoo nag ndénkaa nekk ñaan nga xamee ni baaxee na ko dikkaat na nag ca jotaay baak ñañu ko dara jaale ak di leen ca fàttaliku lu ko jiitu itam ma ngay bégalee taalibe yi ci ñëwu xalif ba nga xamee ne ña nga koy séentu ay kàddoom ak Alioune Badara Diop. fekkee na xalifa bi ñëw na incha allah ñu ngi ñaan ñu ngi séentu tamit ñëwam bu egsee incha allah bu sonn bugg nañ mu egsi ci jotaay bi comme nu ko daan defee mu ñëw ñaanal ñu leen ñu tëbbin ak ay leer yi nga xam ne ne bàyyeekoo na fële ca Makkatal Mukarrama ak ci Madina wara leer yooyu bugg nañ ko baaxee ko mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo fi nekk loolu daal moom mooy mbir mi incha allah moom la ñuy waajal nii gis nga ko yaa ko gisal yaa ji gis gisal ko sa bopp xam ne ne moom nga fekk daal ma ngi sant yàlla bu baax li ma jot a fàtte te fàttewuma ko mooy ne bis bi dañ ci rendre hommage xalifa Cheikh Ahmed Tidiane bint Cheikh l'Islam Hadj Ibrahima Niass rendre hommage tamit bint Cheikh l'Islam Hadj Ibrahima Niass Seyda comme ni ko defee daaw la koy continuer chaque année ñu jël ñaar rek mu yóbbaale mboolem jaboti ñi rek ne léyaali yi ak guddi yi guddi yu sell la guddi yu màgg la guddi yu barkeel la nañ ci fuglu sayda aïcha radiallahu anha ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko guddi yi lan laa ci xalul lan laa ci def yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko del saxoo di wax allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni mun a soxoo ko rek ci guddi yi ba keroog ba ngay dajeeg leelatul xadri man kenn ku nekk ci ñun mun na soxoo di wax allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna loolu lu baax la lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle la bon nag loolu la ñuy baaxee mboolem jullit fu mu mën di ne lii wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo waxoon Aïcha jawaram na ko dee leen koy soxoo ci guddi tedd yu mel nii ban ñu ngi koy baaxee ñëpp di wax ne bés bi ñu ko fuglu ñu ngi am ay gan yu màgg gan yu tedd yu bàyyi ko fu ne ku nekk xam nañu ci respect ak ci mbaax ak ci yaatu ak ci bëgg gan ci accueil nañ leen jéem accueil ci accueil yu baax ñun tamit ñu ngi préparé macha allah fu ñu war a dem yëpp dem nañ ko dem nañ gouverneur dem nañ préfet dem nañ police dinañu yónnee ay éléments yoo xam ne incha allah yaakaar naa bi dina doy képp ku ñëw tamit sa dégg lu ñuy déglu ci jàmm taataan lu ñu taataan ci jàmm ñii nag ñoom ba fajar ndax guddi gi dañ koy màggal ci ay tudd yàlla ci ay surprise yoo xam ne du ñu wax ci média bu ngeen egsee di ngeen ko gis incha allah. Cheikh Baye Adi Niass moo doon addu noonee mu mel ni kii itam nag ne ñaan ga nangu na ndaxte ña ngi xamal ne xalif général bu Medina bàyyi di Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass jamono jii ñuy addoo ngeen di teew teewlu yegsi na ci dëkk bu sell bii di Medina Baye. xabaar yi bitim réew. dañuy euh, àndaat ak euh, moom Alioune Badara Diop ci euh, jukkim xabaaru bi ci réew yi na foo koy dooree. jërëjëf euh, Ngoné Ndiaye ren xibaar bi ci mu dañ koy door réew bu benn xibaar bu mucc ayib kat moo fa am ginnaaw gouvernement bi bi mu jëlee décision ne dina yokk lii de payeeru fonctionnaire yi loolee ginnaaw bi mu ko annoncé woon ci fan yi weesu yokkute boobu dem na ba toll ci 30 pour cent ginnaaw ndaje bi nga xam ni njiitu réew bu benn amaloon na ko ci talaata bi ñu weesu ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril moom moom mu lay fas yéene na yokk li nga xam ne mooy salaire u fonctionnaire yi ginnaaw bi ñu juboo ci ay kàddu wante mébétam bokk na ci yëngatu bu baax ci li nga xam ni wàllum xëyum ndaw ñi. xabaar yi ci réew. dem ba RDC Congo wax ci ki nga xam ne mooy premier ministre bi di Jean Michel Lukonde ginnaaw bi ñu ko tabee mu doon premier ministre bu réew bu RDC Congo ah, ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril atum deux mille vingt et mu am atub lëm wante mel ni ku gi moom nanguwuñ benn yoon na jot na liggéey naam sax moom nee na am na bilan bu positif wante ku gi moom nanguwuñ benn yoon li ni mel ah, ci fàttali seen gouvernement boobule amagum na atub lëmm. réew xabaar dem ba réew bu Togo wax ci gouvernement bi ginnaaw bi mu dàqee li tollook téeméer ci lu ëpp ci ay jàngalekat yoo xam ne dañ doon grève ñu leen bokk ci sept syndicat des enseignants du Togo mbir moomu la mu ngi am altine bi ñuy weesu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril ki nga xam ne moom lañ dénk wàllum fonction publique bi jël na arrêté boobule dàq li tollook téeméer ak fukk ñaar ci ay jàngalekat yoo xam ni dañ doon grève xabaar bitim réew wax ci beneen mbir dem ba réew bu Maroc wax ci benn taskati xibaar boo xam ni di wuyoo ci tuuru Rabi al Ablaax moom moom la jot nañ ko ni ñeenti at yoo xam ne da ko nar a tëdd kasu ginnaaw bi mu defee li ni mel décision boobu la jël nañ ko ci altine bi ñu weesu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru la ginnaaw ci loolu mun nañ fàttali ni moom taskati xibaar boobule dafa jotoon a publier ay vidéo yoo xam ne roi bi rafetlu ko. xabaar yi bitim réew. xibaar bitim réew jeexale guerre bi am. ci diggante ñaar réew yi di réew bu Russie ak réew bu Ukraine waaye na mën nañ wax ne li nga xam ne mooy réew bu yi mu ngi gën di am place foofu ca réew bu Ukraine ginnaaw yenn bërëb yoo xam ni nangu na ko ci àllarba bi ñu weesu nag jot nañ gis ni am na yeneen bërëb yoo xam ni armée russe bi moom jot na ko jëlaat bërëb yooyu le bokk na ci région bi nekk ci Kharkiv ak fi nga xam ni mooy Donbass wante ci noonu la mun nañu wax ni Union européenne mu ngi jéem a dox ci li ni mel ngir kat dakkal guerre bi am ci diggante ñaari réew yi di réew bu Russie ak réew bu Ukraine. xabaar yi bitim réew. jërëjëf soxna Ngoni foofu la ñem ci li nga xam ni mooy xibaaru bitim réew yi kenn dalay jàmm. bak bangoog xabaaru uh, tàggat yaram yi Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi di la ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak football ak léegi demi-finale aller Ligue des champions démb Liverpool dafa daan Villarreal ñaari bal ci dara ak bitu Sadio Mané bu ñu demee Italie nag foofu ñaar fukkeelu bëccëg bi Calcio italien Fiorentina dafa ñàkk ci kanamu Udinese ñeenti bal ci dara Bologne am ndam ci kanamu Inter Milan ñaari bal ci benn Atalanta Bergame ak Torino ku nekk ñeenti sa moroom final aller Ligue bu juróom-ñaari waxtu jotee West Ham mooy laale ak Hertha Francfort Leipzig di laale ak Glasgow Rangers fanweeri bëccëg beeg juróom-ñaar Premier League ca Angleterre Manchester United di laale ak Chelsea demi-finale Ligue Conférence dalal Roma Feyenoord dalal Marseille bu juróom-ñaari waxtu jotee football ci jigéen ñi national de juróom-benn bëccëg moo des ci saison bi nag ñii di waa Kaolack FC benn poñ moo dox sa diggante ki jiitu ci tableau bi nag ñii di waa Kaolack FC nag ci fukki jongante ak ñaar am nañ ci juróom-benn ndam juróomi nil ak benn défaite ñu waxtaanee boxe anglaise ñeenti gaynde nag la ñu tànn ngir ñu dem a teewale sunum réew ci fukkeelu championnat ak ñaar bu boxe anglaise ci jigéen ñi ñu jàpp ko nag juróom benn fan ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai gi ñu dëgmal foofu ca Istanbul ca Turquie ñu waxtaanee CHAN 2022 dina nekk nag ñeent fukki dëkk ak juróom-ñaar ñoo fas yéene xëccoo fukki ticket ak juróom benn ngir jëm ci li nga xamante ne mooy juróom-ñaareelu édition CHAN bi nga xamante ni moom la ñuy jàg jagleel footballkat yi nekk fii ci championnat local bi nag des na ko amal ca Algérie nag juróom-ñetti fan ba fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atum 2023 bi nag tey jii lañu ko fas yéene amal ñu waxtaanee nag football local fédération sénégalaise bu football nag daal dinay wax ni mboolem compétition yi ñu fas yéene amal nag ci biir réew mi nag bu ñu demee ba football juróom-ñaar fukki simili ak juróom des nañu taxawandi la may football kat ju noppalu nag daal di naan ndox loolu nag li ko waral moom mooy tàngoor bu métti bi nga xamante ne ko sunum réew circulaire bi nag dañu ko jox mboolem acteur yi yëngatu ci wàllum championnat bi nag ngir ñu mën a saytu bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy décision bi fédération bi jël moom mooy mooy fanweeri minutes yu nekk ak soixante quinze minutes yu nekk ñu daal di taxawal jogante bi may football kat yi ñu naan ma ngoog Ngoné jaay gannaaw ba la ñaanalee kaddaay yu jàmm li ma gënoon fës ci xibaaru tàggat jërëm yi jaa ngeen jëf xibaar yi ci Alfayda. ñu daal di ba tey nag ci eh, xibaar yee eh, ci kooru gay moolum géej ak Bara Diop. kooru gay moolum géej o oh, xaaj Ibrahim gay koor gaa ngi xëccu jëm ci jeex bu jullit ñi làqee ay fan benn fante ko day jéem naam yéene yéene gu sell dugg ci koor gi ak cawarte waaye laata dog di jot kooram gi daal dog o oh, DG tey nag caaxaan faaxe woor gu yegg. lapas xéene seytaane sori ko naafila laga jaaru ci mooy li ko daloon démb dal ko DG nank rekk comme xel mi day xelli mu déggoon benn bàkk fàttali ko ko teg fem wees dal naa ci démb maa ngi doon jàmmalanteeg Abdoulaye Diagne njool xodd ba koy tooñ naan ko naka koor gi mu ne ba sa simple xëdd tëdd yeewu ndogu oh, maa ngi doog a dégg <laughs> sarakeresu lay DG am na stratégie bu bees waxtu naa fi la jot mu yem ca kër ga këpp këppal quelque rakka te kurusam tudd borom bi teg fa lépp te portable am di connecté rek nar for bët jóg doxantu xaaj Ibrahim Gueye naxasaale na ba fajar jot technique boy town yi la pas xeene teg xëdd tëdd yeewu ndogu o DG préparé xëddam bu bakkane la mu nas waxtaan na ceeg madam bu ko kenn yee daa xëdd ba biir bi fees tepp dal di forbët o gay yi moolum géej nelaw nelaw yu diis ay waxtu rek mu dégg gor ko allahu akbar allahu akbar o DG ne bëri xët <laughs> alhamdulillah comme yorul montre te ay portable yëpp daf ko fayoon teel na ko taal commande ba ca wetam télé baa gën gaaw naka mu bés rek fekk waa Màkka nekk ci naafila ga DG ëppal baaxul dog nañ bu yàgg bay naafila DG teeyut tàndarma ba tege woon ak ngato ba Haaj Ibrahim ne ko tëndiix ca la wax lile allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqika aftartu o DG dal di dog ko boole ko ki taal téléphone madame madame Gaye daal di dikk seeteet <laughs> yaa dégg ndigal quoi mais bul ma yee ba dog jot mais dog ngeen bay naa fi la te yeewoo ma mais madame xanaa da nga bëggoon rey madame Guèye xaaj Ibrahima deux heures jot di o oh, DG ñaar xamut waaye moom xam na ca la <laughs> demal <laughs> yàqooti naa madame Guèye lu xew DG <laughs> jàmm rek donte du jàmm waaye dañ kumpa daa demal demal li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud li ci euh, yéene kaay yeeg El Hadji euh, Seydina Omar ahlan bikum njiiti réew mi Macky Sall nangul na boppam ne sénégalais yi fa ñoo sonn ñàkk fa ñoo ndóol xam na ñoo xam ne bu ñu ndékkee du ñu xañ bu xañee du ñu reer ba tax mu fas yéene leen a wàllu dimbala leen ñeen fukki milliards ak ñett la leen fas yéen séddale léese ko yéene kaay ne loolu moom la ñuy duppee opération solidarité nationale njaboot yi ñu xayma ne ñàkk leen di bëgg a rey Sénégal gi te Macky war leen a dimbale ñu ngi toll ci juróomi téeméeri junney njaboot ak lu topp réew mi yéene kaay na ko wàllu taxi lu ëpp juróom benn fukki milliards moom la ci nguur gi bàyyi lépp ngir jàppale askan wi yéen a kaay mel ni kuraan ko Macky Sall président si ba nga góorgóorlu de ginnaaw boo dimbale njaboot googu ba pare fa ngaa war a wàññi dund gu cher gi lépp a yokk ni ci réew mi ñu ne déetawaay mbiru góor jigéen nga lijjanti ko ndax gis nga ñaar yooyu soo moytuwut ñoo la nar a xañ élection député yi di ñëw sénégalais yi feeg wàññoo dund gi noppi fee jëlee ngóor jigéen du tax ñu woteel la l'observateur ba ñàkkante lépp ngir wote député yi moo alxamis ji fa fas yéene dajale ay kàngaamam ci wàllu politique ca palem ba lépp ngir nas seeni pexe wala fa jëri yéene kaay na ko faala ci yokkal yeneen pexe yi nga xam ne Macky Sall fa ko lal ngir am ndam ci wate yii xam nga mooy lanam jëfandikoo parrainage bi ngir bloqué mboolem candidat bu ñu yaakaar ne soo ñëwee fa nga leen di andil jafe-jafe ñu ne la xalaa ma ndiir bàjjoo xalaa xalaa doo fi bokkee soo waxee lu tax ñu ne la fa ngaa for koloog fa ngaa am doublon ak sa parrainage bi baaxut ak ndax ñoom bennoo fi mu toll nii li ñu am ci parrainage bi téet fa bëri ba ëpp source ay yéen kaay mel ni ku naan ko Macky Sall yow na faa la jàqal de am na coalition bu ñuy taxawal du baax ci yow de coalition rebelle lañ tudd ay ponkal ñoo ca nekk bokk na ca Thierno Alassane Sall Thierno Bokum Abdourahmane juuf ba nekkoon réew mi Cheikh Oumar Sy Ibrahima Amidou Dem l'observateur na ko faa lay wax secret yu nekk ca coalition bu bees boobu ñu taxawal boo moytuwul coalition bala moo judd sax ci lay dee tas ah ndax ñoom ñi neen ku nekk na maay jiitu surtout diggante docteur Abdourahmane Diouf ak Thierno Alassane ku nekk naan maay jiite yëfi ñu ne déete condition yeleen sëriñ buub tegal ngir ànd ak ñoom ci wote député yi ak ñàkk ànd ak ñoom lépp leeral am problème ñoom Ousmane Sonko seen ba ñoom fa la jëm buñ ca waxut de ah, yow bu Pastef ba ñu tànn moo jur coow ca seen biir ki tànn waa yeewi askan wi ngir amal fa dem ànd ñoom muy Cheikh Abdou Dolli ba nekkoon bokk gis-gis source a moo ñu xamal ne yëfee sottee gudde ah waa PUR ñoo bañ bañ ne soxlawuñ Cheikh Bara Dolly te du bokk yeewi fañ ko teg nag ñu ne si ay jamono fa fee yëkkati woon kàddu moom Cheikh Abdou Bara Dolly moomu kàddu yu la ñu taxaw ca buntu yeewi na ko xalaa ma ndiir bàjjo xalaa xalaa doo fi dugg soxlawuñ la yéen a kaay bi ne waaye hée def leen dànk de ku lamb yaa tay daagul fañ la nobee Cheikh Abdou Bara Dolly moomu du ñee xam ñebbe de ñi ko soxla fa ñoo bëri waa wàllu Sénégal ña waxtaan ak moom sax na ko bu waa yeewi a publique fa ngeen xam lu leen doy de ah Abdoulaye Wade presque wan na leen gannaaw ba ñoo nga ne defar nañ seen directoire de campagne waaye ñoom Waré Sarr ñañ àndal fa ñoo fas yéene ñàkkante ak Macky de ne ko far force fara force doole mbaam Karim Wade fay bokk ci wote yi ba ca 2024 naqari nag lu ngeen ci bañu nag bañuñ ko ci leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne njiitëram Macky Sall fa ramassé xuuf paa ay milliards yu du jeex ñetti téeméer ak faneeru milliards ndax fa ñoo wali del Sénégal sukkukom bi xaalis boobu nag fañ ko war a dugal ci wàllu autoroute à péage ba ak port bu ndaayaan li ni mel mooy marché bu gën a rëy ci réew yi ñu wër Sénégal am na ko le quotidien yéen a kaay dëggal ko ne finance islamique sukku koor bu ñetti téeméer ak fanweeri milliards di koppar yoo xam ne fañ koy dugal ci wàllu investir port bu ndaayaan ak autoroute à péage bi bés bi yéen a kaay di ñu xamal ne weeru koor yi maanaam njeextale korite gi fa nar muur li ñuy wax fête du travail xam nga premier mai lay am dimanche ba tax njiitiram Macky Sall jafe-jafe yi ñetti fan ci weeru mai lañ ko koy jox syndicaliste yi ñoom it soppi ci ab doxalin le waree journal moom di ñu xamal ne mbiru astu soxna soxna sa faatu waree wasin ca hôpital bu Louga ñeenti sage-femme yañ ca jàppoon tëj kaso ndax càggante ci nit ku nekk ci diggante dund ak dee yéen a bi nee na sage-femme ya ba léegi ña ca kaso ga de génn guñ de bés bi yéen a na ko xam nga lu taxam fa ñoo seen atte ba ba juróomi fan ci weeru mai ka gañewaat atte ba doxoon diggante mook Ablaye Sylla du kenn ku may moomi kebe direct news moo ñu ko xamal tàggat yaram Liverpool moo jàpp Villarreal di di a ya ba tax stade yéen a nañ lool final ba record yéen a kaay na ko Sadio fi mu toll ni tolloon na ak Drogba ci dugalu biiwu Ligue des Champions Samir Nasri ne balon d'oru ren bi bu ñu waxantee dëgg maa ne ko war a jël wala Benzema wala De Bruyne bés bi yéen a kaay na ko saajo daal moom mi ngi ci course bi moom ndax dugalaat na démb libération moom di ñu xamal ne xale bu jigéen borom juróom-ñetti at ya ante njaay ma ñu faatoon ca kër gañ doon tabax te yeggut ca diwaanu Bargny ka ko rey yoon teg na ko loxo Mamadou Bala tudd ab xale bu góor la ñu gën koo xam ci Momo tailleur la fa benn soxna su sant mbuub na ko kaay ma nettali la sama gel bi màgget war a bàyyi nee na léegi nañ dajee ca kër ba muy dem mu ànd ak Anta Njaay xale la ko Mamadou Ba la seetloo ne Anta daal fu loo may xoolee man damaa wax ak yow rek ci la tëbét daana ci kawam xoj ko ndaw sa mun a falaa dawee ba leen fa ndekete doxee na fa ray ko source a yéene kaay moom di ñu xamal ne benn jàngkatu diine fa wann loo lor benn xale bu jigéen bu am fukki juróom-ñeent ba pare jënd ab garab comprimé ngir yàq hëmb ba ñu mujj teg ko loxo bañ ko laajee nag mu ne dëgg la faa bëggoon xale bu jigéen bi nattu dal ma ci ma dem ci sama benn xarit boo xam ne fay jaay pharmacie Omar la tudd mu jaay ma médicament bi garab gi juróomi junne la ma ko jaayee takke dere dem teg loxo Omar laaj ko mu ne leen dëgg la garab gi ma ko jaay meso jaa la tudd ñaat téeméer lay jar ak juróom benn dërëm ñaat téeméer mille trente quatre francs waaye man vingt cinq mille laa ko ko jaayee ndax fa tolloon diggante ma ni tamit ma tollu diggante ndax sama soxna fa amoon doom bi ma koy jaay nag sama patron pharmacie bi na li ci euh, yi Choukran jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi farewoon ci wàllu euh, dëglu gi jaajëfal ko du sekk kenn mi ci xarale gi ak it waa rédaction euh, ci euh, njàppandal gi way leen di ànd ak sunu ay programme ñaanal nañu leen mucc ak jàmmi biir ak biti taw féex ak tay sir jàngeen jëfati Le journal Ngoné